kulim lim waye waaye ñooñu ma lim ñoy li bouclier de cette coalition fi ci Cikki ñoy ñi nga xamantene ku ànd ak ñoom wala xamne di nga gagné Cikki très largement te ko li tax mo parce que fi ñu tok di dal dal war nañ fi toog ndax diggante kan ci kan kan kan mama, ngomul kan ati Ndoundour mokk na rumbax gaay ba mu mokkee du tey ndax da ràññee yéen waa Dagana ni foofu di Dagana mokki noonu la Kaarlaam mokki noonu la Ngoo Seex mokkee rumbax rumbax rumbax la Toobañ mokkee noonu la Jujuuf mokkee noonu la Ciki mokkee li ci ki mokk nag tey moo wax leen fii laa def meeting 2019 ma ne am na gaa ñuy root laaj leen leen dañuy rootal seen bopp wala dañuy rootal kenn question boobu yéex nañ ci am tontu ba jamono yi passé ngeen commencé am tontu ci loolu ngeen new yaakaaroon ne ñooñu ba ñu demee marché jëndi coof jëndi jarañ jëndi tuufa jëndi jumbo ngeen yaakaar ne ñooñu ba ñu demee jëndi loolu yëpp ngeen defoon ne lu bees la di toggal ñooñu ne leen noonoo gaañ boolu dof li xale yi tuddee boolu dof ñooñu tey ñoo jàkkaarloo yéen ne leen changement àndu bi ci maanaam dañu fas yéene ñoom ànd ak ñi fi nekkoon seen droit la démocratie lañ nekk

ndax ñooñu ne leen nañu ànd ak ñi fi nekkoon loolu ñu leen wax seen njëriñ la wala du seen njëriñ mbéju kanam borom koy fay mbokk man Mamadou Ndione je suis un démocrate sama doom sax bu mu neexee bañ ma sama soxna bu ko neexee bañ a ànd ak ma ànd ak nit wala bañ a ànd ak nit seetlu la da ngeen war a fu waaye neex na dem waaye waa ci

dama bëgg nit ñi xam ne ñooñu ma doon jàkkaarloo ci quartier yi ay góor lañu man tamit yaakaar naa ne góor la te la ma wax ak ñoom ci penc yi ci sango yi ci néeg yi lu simple la tey dinaa leen ko wax dama leen ne boo leen yaakaaree ne gaa ñi fi nekk depuis vingt ans ndax système bi changé wul la bu dee yaakaar ngeen ne ñoom li ñuy def baax na bu leen ma woteel nii laa leen ko waxee saaf yi ngeen may saaf bu dee yaakaar ngeen ne ñi fi nekk li ñuy def baax na bu leen ma wote waaye boo leen leen wote dimanche nag ñëwaat lundi naan ma yàpp koor yi kurka boobu dina jafe de dama bëgg ñu xam li may wax dugguma ci politique pour ceeb nii naan sama ceeb dugguma ci politique pour yokk suma daraja dugguma ci politique pour ndombal tànk bi ma amee ñe fanweeri at ak juróom laa diriger lu gën a rëy Kossy il faut nit ñi loolu j'étais le patron du terminal à conteneurs ma yërëm cent vingt et une personnes téeméeri ak ñaar fukk ak benn la ma yoroon yaa ba may am trente ans moo gën a rëy li ma yor tey il faut nit ñi xam parce que j'étais dans le secteur privé la ma yoroon ci multinational boobu ma nekkoon boo jëlee le multinational bi daan am ci ci ci ci chiffre d'affaires maanaam ci euh, la muy jaay la muy la muy am ci recette boo ko xaajoon ñetti xaaj benn xaaj bi mooy man maa ko yor amoon ay interlocuteur un peu partout Sénégal ñëpp xam ma ñëpp ñu yëngu ci milieu portuaire muy la douane les transitaires ñëpp xam ba may jógee ca la ma yoroon di ñëw COSEC J'étais le secrétaire général du SATS SATS une entreprise qui nekk port bi de di liggéey presque ci secteur privé ni ay entreprise de manutention ni ñii ay entreprise de transit n'y a ay entreprise de logistique transport ni pas ay commissionnaire de transport a pas ay consignateur il n'y a ay agent maritime Nous avons des que xel ont ci man pour coordonner loolu laa bàyyi dem Kose te loolu ma yoroon foofu yàlla xam na ne moo gën a rëy Kose bi ma yor li tax ma jël Kose bi ma président Macky Sall tànni parce que dama jàpp ne am naa vingt cinq ans ci secteur privé jamono yooyu ma war a dugg ci secteur public pour yokk suma expérience mais également gën a participer sama développement dëkk muy Sénégal.

Aujourd'hui, je suis le président de l'Union des conseils de chargeurs africains. boo demee faut mënti la même chose waaye benn téeñe la ko waxee muy les archives sont là ma le plus le ma yor suis ja sama ko gën a dama wax tout le monde était là Le plus ma yor tey jii ci guddi yi maire ja sama ko ndax man mooy mënuma seetaan samay mbokk ak jafe-jafe yi ñu am nii may tëdd di nelaw comme si de rien n'était may seetaan loo xamante ne xam naa fa muy mujjee suba ñu ko ci dugalu suñu loxo même ñii di xëccoog man seen sutura mooy ma gañe rek waxal tuuma de ñii may xëccool seen jàmm mooy ma gañe lu tax ma wax ñoom dafa am yu ñu bëgg a régulariser nee na dafa am yu ñu def nee na fa nu jëm ñoom mënuñu ci kenn te waxantu xëccoo bi yëpp nag li ki laxasu am na ko ko ci sax dafa am ñu bokkul ci làmb yi lamba ji xew Diass commune Diass am na ñoo xamante ne bokkuñu ci te ñu ngi yóbbante ay galgal ñu ngi yóbbante ay kurpañ ñu ngi yóbbante sax ay dompat ndax dompat ci sot la bokk façon bu ne koy yóbbante jamono yore passé am na waa ñoo xam ne crédit téléphone am ngi fii ci département de Mbour téléphone am woo ay nit na leen dem leen ànd ak waa ji dem leen ànd ak kële bu loolu moo ko du gañe leen bu leen gañe du baax ma ne que waajal sikkim yëpp a lakkandoo pour o sikkim moom mu ngay boy moom it mu fàtte sikkim moom toppatoo sikkim bi nekk jël dañuy gagné élection yi incha allah lu tax ma ne dañ koy gagné ndax waajay def loolu di yebal ay góor ak ay jigéen nan leen dal leen ci kaw mu mën fexe leen ba bu mu jàll waajay def loolu.

mu ne ñooñu c'est une société égalitaire maanaam dañuy yem ñoom ñëpp yem kenn tegul ci kaw kenn mu ne ñooñu dinañ tànn nag ku leen di jiite mais ci ay valeur lañ koy teg mais ñooñu ay bañkat lañu naam mais ay nit ñu am xel lañ te ñu mën gan lañ waaye kenn du toog seen kaw bopp di leen jéem a kalli kalle waaye day jéem loolu bu jàngoon loolu dina xam ne deret bi nekkoon ci sunu maamaati maam yooyu moo nekk ci ñun ba léegi moo tax ba bi gars yi di xëccoo Benno Bokk Yaakaar bi man dama toog ci sama xeer xam li ma xam xam ne bañ bëre bëre bëgg a bëre bëre bañ bëre bëre bëgg a bëre bëre li taxoon gaa ñi di xëccoo Benno Bokk Yaakaar bi lenn rek la loolu xale yu ndaw yi sax kenn mun leen ci ñaañoo kenn mun leen ci nax fi ci naaw sax xam nañ li taxoon gars yi di xëccoo benn dañ ko doon xëccoo parce que ñoom ci li ñu njort ndax muusuñu ci li ñu njort dañu ne bu ñu jëlee benn bi Mamadou Ndione du ñeme présenté wu kon nañu jël sunu moyen yëpp sunu doole yëpp sunu pexe yëpp sunu xam-xam yëpp fii ba mbuur ba caajaay nañu dajale lépp fexe ba ba waaj bu mu jël bennoo bi bu jëlul bennoo bi rek quartier bi la ma ne dañu xamul wallaahi dañu xamul bëgg bëre bëre bañ bëre ba tax na ñun suñu liste mooy moo ñun ñoo déposé liste dans le département ñun ñoo njëkk di posé sunu bis bi gars yi di wër di ñëw sama militant yi naan leen gannaaw waa ji du bokk jox leen seen dossier ñu yokk leen ci sunuy liste gars yi mel ni ay yoo biw fu nekk ñuy biw keroog bi may décidé ne Pape ak doyen Assane ak sama naatangoo yi ba ma leen di wax ne dañuy def point de presse parce que dama dem ba ci biir ma ne mais nan la nit mënee dawal bi ma biir pour saag ne Mamadou Ndione bokk ci élection yi Mamadou doomu Omar Ndione Omar Ndione ak Mariam Diouf fële ca ñaam sama yaay sama papa li mu formé ci ay tailleur ci Koursar kenn xamul mu toll sama yaay li mu defar ci ay jeeg ba ñu am ay sët un peu partout dans tous les villages kenn xamul mu toll su ma génnee àdduna fas yéene ñu denc ma fii ci Koursar ñu xalaat ne man samay doom dinañ am way bu ñaaw ci Koursar bi man ne ji noonu yàqoo bi may waslu te yaakaar communauté comprendre damay yóotu maire Diass pour fexe ba ndaw ñii suba ñu régler seen i problème damay yottu mairie Diass pour fexe ba jigéen ñi nga xam ne ay jàmbaar lañ def ñu gën fural damay yottu mairie Diass pour que suba ñu bañ a nekk ci situation boo xamante ne guddeeg bëccëg ci ay coow la nekk jàkkaarloog état wax ak état du ñëpp ko mën ñi ñëw ay problème moom yu a a régulariser ndax gars ñoom nee nañ bu ñu régulariser wu ñuy dem kaso bi lañ bëgg ki yenu ne da koy régler ci waaw kooku est-ce que dina problème misaal naa ko bi may def bi may def rencontre yi na ne Assane Mandiok mii su doon dama ko ameel cent mille ma ameel Assane cent mille ma ñëw ci Pape Malick pour mu ñaanal ma njëkk ci Assane pour mu un baal ma Voilà millions wala mu may ma délai fekk pam malik million est-ce que Pam malik dina ma pour ñu régler problème 100 000 amel ngor gi may ma ci pour mu ñaanal ma malik million malik malik euh, triple lay Lolo dal sama moo tax li may wax nii xel moo koy dégg man dama xam la mooy état état koy wax ak moom da ngay set wecc boo setee wecc nga ñëw jàkkaarloog ñoom tenir un débat d'intellectuel un débat scientifique nga wax ko loo xamante ne parce que état kenn mooy décider mu nga ci kaw waaye ci diggante bi fan la décision bi di jaar ak nan lañ koy toggee boo dul nandite doo xam noo koy réglé ci misaal problème mu Sakiraak bi mu amee xale yi man leen indil leen ma lettre bi maire bind DG APIX parce que dañ ma njëkk indil réponse DG APIX man leen andil lettre ba maire bi ma toog trop deux semaines mi doog ma ko indi bi monsieur le directeur la commencé gars yi fàtte nañu général lettre bi deux paragraphes la fa ma ñu bind DG APIX ne ko dañu bëgg nga jox ñu 32 hectares ci titre foncier wu APIX déjà ils se sont trompés d'interlocuteur parce que c'est pas un directeur général qui règle cette question lettre waru woyefee noonu dafa waroon ànd ak un dossier ki wax lan mooy Sacré lan la Sacré joxe ci aéroport lan Sacré ban position la nekk nga génnee les coordonnées GPS de Sacré nga argumenté wax population bi may laajal nangami nit la mais problème boobu bu doon 2007 ba nuy yaatal ba nuy yaatal ba ñuy déclasser euh, la la forêt les 718 hectares de forêt ba ñu koy déclasser bu doon boobu période boobu amoon nañu conseil municipal bu mën a régler loolu bu comprendre ci lañ doon wax tout de suite ne nañu yàq suñuy village ci la doon gën a yomb waaye même bu ñu egsee ci niveau bi. waxtaan mën na am solution mën na am mais à condition nga jaar ci yoon yi nga war ak nan nga war a ñu ci danañ ci continuer wax danañ ci continuer dox ndax ñun li ñu jàpp mooy luy préoccupation population bi nañ ko waxtaan ci discuter ko parce que de DG koy may man DG COSEC est-ce que mën naa may comme ni ko naat bi ya yaa ya yaa xayti ba ma yokk ci mulaan ci gatal ñak xam comment fonctionne une structure parce que tay dit, une décision qui consiste à céder une partie du patrimoine d'une société conseil d'administration lañ koy examiner donc PCA Apex APIX waroon na jot copie lettre ak poursuite bu dee dossier am ci ampliation yi ak ruq yi ak couloir yi ak seeti PCA ba ak seeti membre conseil d'administration convaincre leen pour que dossier bu excès conseil d'administration ñoom ñoom ñu sensibiliser wu c'est ça qu'on appelle le lobbying intelligent adduna bi ni muy doxee boo yëkkatee dossier da nga koy fulaal nga dox ci wax ci xam yan interlocuteur la nga dem ci ñoom wax ak ñoom mais nga soxla beñi dem seeti jaaykatu jaaykatu maafe doo gaaw lekk beñi il faut ñu xam Quand kon ñàkk comprendre état amul fi benn problème ci dëkk bi et là je vais être très clair avec tout le monde amul fi benn problème ci dëkk bi boo xamante ne bu ñu jëlee mairie dinañ ko ragala wala rusa wala bañ koo toppatoo on va s'asseoir avec les structures de l'État one by one benn par benn xoolaat tout waxtaan def un argumentaire solide Faire ba njiitu réew mi jot argumentaire boobu

bu ñu daggee dix parcelles jël ñeente ñeente lay bi yëpp mooy dañ koy joxaat askan astafirullah loolu yëpp nag ñun xam nañ ko gaa ñi ñoom ñooy signé ñooy def lu ne waaye yooyu ñu daan def yooyu nga xamante ne jaan dëggul doxin baa dëng gaa ñi maa ngi wax ak borom yu kii de jaan dëngul doxin ba de yooyu ñu daan def yoo xamante ne yàlla xam na ne c'est pas conforme à l'orthodoxie waaye yooyu buñ ko bëggee doxañ ñoom ci waxtaan bañ waxtaan ak état buñ ko bëggee dugal comme des points de condition kon ñun ak ñoom bokkuñu combat ñoom ak population yi bokkuñu combat ñoom luy daganal métti bi ñu lekk ba pare mooy seen problème xaw ma imaam Seck nooy firé nooy réglé problème ji lekk muus bi ba pare ne imaam dama bëgg nga ne muus bi famille la na day compliqué la waa ji waxoon rek mu ne waa ji dafa lekk ba pare ñu ne ko li nga lekk daganul mu ne sama yoon nekk xaw ma ne xaw ma woon li dama lekk rek. est-ce que loolu dina ko ci génne kon ci gàttal li ma bëgg nit ñi xam mooy bu ñu jëlee maire yi des day am véritable changement bu boobaa du ñu ñëw Ndang-Ndang bii te waxuñoo chef de quartier Ndang-Ndang mais du ñu yem ci quartier conseil de quartier conseil de village ASC bi am ci dogal groupement famille am ci dogal ndax léeg-léeg ASC bi ASC groupement famille mën nañu xëccoo benn béréb kan man lan nga koy àttee waxtaan conseil de quartier conseil de village bu ñu ko taxawalee ba noppi dañuy tabaxal tabax li ñu un plan local de développement ci ñett wéru njëkk yi bu ñu fal bu ñu paree ci plan local de développement boobu ba paré li ñuy def mooy dañ koy budgétiser dañuy xam plan local de développement boobu ñaata lay coûter ndax doo dem jëndi dàll ba pare. doo ko xool nan sama politique ñaata la avant ngay def ngay xam sa politique ñaata. plan local de développement bu Diass pour les cinq prochaines années bu nekkoon quarante milliards bu doon dañ ko xayma mu nekk quarante milliards. obligation maire Diass mooy mu lijjanti jikko sama gars yi lijjanti quarante milliards de loolu compliqué wu ci man. dama bëgg ñu xam loolu. compliqué wul de. y a les financements innovants.

Kon wuti financement ak ay fexé fexé ba suñuy xalaat ni projet yi nga ñoko xalaata suñu bop ñu financer ko suñu bop lolu bu boba maire responsabilité waye laata lolu budget maire fa lañ koy duggal budget maire jess 1 milliard 200 la na même 1 milliard 200 ñu bal mois lañ nek novembre quel est le niveau d'exécution budgétaire bëggoon naa sax la presse locale ngeen dem laaj la commune quel est le niveau d'exécution budgétaire en recette et en dépenses am na sax benn bu ci waxoon ne deux millions la ci fas yéene def mooy fi xale yi war a baalee di fa def seen cérémonie ak yooyu muy muy maison des jeunes euh, maison des jeunes boobu dañ non dañ koy réaliser ci at bi am du am déet voilà man bañ ko bindee fama tok dama tok ma retal mané ku xamul le code des marchés publics moy aventure wu ci mel non bo lele mo ma wax sax gars yi nag yaa ngi jàngal gars nañ jël nañ ko jël nañ jëlale xam-xam yi CCW yi may bayyi ni ci ci yoon un marché de cette nature boko dougalé dugalee ci sa budget yow mairie ndax li taxoon ñu dougal ko élection ya yi taxoon dañ na comme jeune yi ñoy voter en masse nañ leen indil ben meeb bu ngand bu ñuy wax. Euh, maison des jeunes on va mettre 200 millions Quand le code des marchés publics fonctionne, fonctionner on un marché de cette nature L'appel d'offres ne peut être qu'un appel d'offres ouvert à tout le monde et que le DAO le dossier d'appel d'offres, complication yi ki n'a pas am balaa nga ko de DCMP mu dem pour nga toutes les autorisations requises avant de lancer ton marché décembre kon ñoom bañ koy bind dañ ko bind bindu ku xamul bu loterie daganoon jamono yooyu imam bu daganoon ba tey su ma ci euh, loterie woon gañee gaañ mais innamal xamru wal maysir du noonu moo tax ba man ñemewuma ci woon parier mais xamoon naa ne éléphant blanc lay doon doo ko lamb ba daj ko xam naa sax su ma waxee fii ak décembre la nga gis ñu ne doon nañ pose première pierre première première pierre moom yomb na waaw mën nga jël sa benn prix rek yow teg est-ce que le marché est lancé est-ce que le marché est attribué est-ce qu'est-ce qui reste fan la toll beneen question bi noonu kon ci gàttal ñoom xamuñu sens des priorités ñun daal li ñu jàpp ci gàttal mooy tey li ñu def fii ci kii fii lañ ko war a defee mooy lancer nos couleurs di ki sàkku ñaan di sàkku saafenteel ko xàmmee ndax élection yi benn difficulté majeure moo ki naroon am mooy dafa am couleur yi ñu xàmmee woon ñu war a changer couleur yi pour wane beneen couleur mais xolu nit ñi benn couleur yi ki nekk muy Mamadou Ndione ak ñu mu àndal ña jom mi bëccëgu nar gàmm mooy ñi yaakaaroon ne du ñu osé ñàkk xam rek moo tax ñun sunu métier lañ yor ci am ci générosité bi ñu nekk ci secteur privé bi ñu nekk secteur public la même chose ñu jàpp ne ñun lépp lu ñuy def dañ koy def ba ci gundar kàmm mu leer na nañ musuñu wàcc yoon bi yoon bi mooy fexe ba commune Diass raw ci senegal amuñu beneen objectif ba tax na population yi dama leen bëgg a rappeler ne leen bu nu sàgganee ba ñiy toog fi bu leen ñu nee kurka bu ñu neexee ñu ne yëpp koor yi kat kurub dina métti il faut ñu xam loolu man duma politicien professionnel dundeewuma politique politique uma wut ma kër ndax politique bi nga xam ne mayetuma sax jot bu may defee loolu ma sacrifier tout ça am ñu ci rax di ci suuxlu ne Mamadou du bi wax ndax Mamadou dina du ba na ñooñu tey jii ñooñu seen objectif yéen ñëpp xam ngeen ko xam nañ ne Mamadou kenn mënu ko def ci poste ñooñu xam nañ ne tey message bi ñu bëgg lancer aux générations yi ñëw après mooy Koursaafi ku jóg nañ dagg bopp te Mamadou tey jii le combat qu'il mène c'est un combat pour les générations à venir c'est un combat pour les jeunes à venir ndax dootuma jeune mag la combat bi dama ciy dem ba jeex ndax jàpp naa ne jeego boo ci teg tuyaaba la mais yéen jeunes surtout boo leen banaliser ces élections ba jàpp ne affaire bi way Mamadou ndion nañ ko bañ a wufal nangam-nangam suba di ngeen bëgg moom du ñëwaat fekk même du ne mes dama bëgg mu clair samay mbokk lay waxal dañuy soxla mairie bi pour wan Sénégal yëpp nu ñuy gérer mairie li ci kanam nag ñu bàyyi ko ci loxo yàlla loolu laa bëgg nit ñi xam ba tax na aussi boo nekkee ak say mbokk da leen koy wax mu leer am nañu capacité yi am nañu égipe bi kon tey jii nanu jàpp ne sunu ànd bi àndu victoire la àndu ndam la te incha allahu dinañ dëgg Thank you.